maa ngi nuyu waa Saloum di leen rafetlu ñëw bi ngeen fi ñëw fii si sami municipal ah, waxtaan ak ñun jëm ci wàll Covid bi man maay Abdourahmane Niang di majoru sami municipal. ok euh, major ñaa tey ñu bëgg waxtaanee lii di troisième vague Covid 19 bi ñu gis ne euh, lan moo ndax ñoo ngi ci troisième vague bi walla. waaw xam nga actualité moom loolu la ñu indil même buñ ko fesalul it fi ñu jëm fi ñu nekk nii nii nii jamono bi ñu toll nii bu ñu góor góorgóorluwul mën nañu wax ne fa lañu jël. ndax lu ko waral mooy ja am na benn jamono boo xam ne virus bi ni mu mel nii ak ni mu mel léegi bokkul ndax jamono bii ñuy wax ak yéen am na yeneen variant maanaam yeneen xeetu virus yoo xam ne dugg nañ fi wala buñ fi duggul it sorewuñu Sénégal ñu ngi ci dëkk dëkkaani yi yu mel ni Gambie wala yu mel ni yeneen dëkk yi ba mu tax nag ñun ñëpp dañoo war a gën a fagaru. ndax tey jii may wax ak yow ci lu toll ci junni ak lu topp ci loo xam ne testé nañ leen juróom benn fukk ak ñaar walla ñett am nañ ko démb juróom benn fukk ak lu topp la woon ak lu topp te boo dawalee weer ci ginnaaw dañ doon wax lu matul fukki nit ñoo ko am wala lu matul fukki ñaar fukki nit ñoo ko am kon nga xamni nak amna lo xamni nit ñepp waref la ci ñun pour ñu bàyyi ko xel bu baax. lan mo waral 3e vague bobu la. ah waw bu ñëk bo dañ ñaanon benn la bo bo joggé ci benn kay ñu tok bu benn période virus bi doxatul comme ñu doon doxé nit ñi infecté wuñu affaire bi wacc bu baax ñu tok benn période rek mbir mi yégaat ñu né ah kon dellu ci wat na kon benen vague ñëwaat na légui nak joggé nañ ci 2e vague ñu togaat bu mu yàgg rek affaire bi commencé waat yégg biñ nee affaire bi yéeg na ñu ne am na yeneen variant yoo xam ne commencé na dugg si ñu ne ah kon kii beneen vague bu bees la bu jóg loolu moo loolu moo tax ñu tudd troisième vague. est-ce que yéen a ngi dem vers population bi pour xamal leen ne feebar baa ngi fi mbas maa ngi fi jeexagu waaw xam nga ñun ñi nga xam ne ñun ñooy wër yëngatu ci wàllu wér-gi-yaram suñu wareef mooy jege askan bi jafe-jafe bi ñu am ak askan bi leen rek la mooy askan bi xam na ne feebar baa ngi. askan bi yëg nañu ne yeneen variant yaa ngi fi waaye dañ koo nanguwul jëfe loolu mooy xat-xat bi. est que nekkul communication boobu la dafa sooxe. mën na nekk mën na nekk ndax communication bu sooxe boobu mën na jógee ci ñun ñi nga xam ne ñoo yor wàllu wér-gu-yaram jóge ci yow mi nga xam ne yow yaay taskatu xibaar jóge ci keneen koo xam ne dafa yor mbooloo te am nu mu waree woon waxee ak ñoom ñu am nañu war a toogee li ni mel yépp amul kon su boobaa xat day am. ndax teelu ñoo bàyyeeku tamit dañoo teel a bàyyeeku. waaw bàyyeeku moom am na. Mhm. bàyyeeku moom am na. Mhm. ndax euh, boo seetloo léegi politiciens yi jóg nañu topp dëkk bi ku nekk dem di seet say militant bopp te fooy dem nit ñi dajee te li ni mel baaxul loolu moom faw ñu wax ko nit ñi dégg ko. du lu baax bu demee bay amit nit ñi nañu fagaru ku nekk na takk maskam te ñu respecté distance bi nga xam ne moom ak sa moroom moom ngeen war a am même bu fekkee dañuy dajee ci ay mbooloo nañu takk masque même bu fekkee dañuy dajee ci ay mbooloo respecté distance yi su boobaa dina mën a am saafara. mobilisation bi ak fond bi ak force bi ndax mu ngi fi. ah fond de xaw ma dara ndax fond moom ministre bi moo ko géré te kooku moom xanaa da dem seeti ministre bi bureau bu mu ne. wala ngeen laaj ko président de la république moom ñi nga xam ne moom ministre bi ñoo yore affaire fonds ñoom ñoom ñoom force bi nag ñun suñu force de mi ngi fi yenn saa yi nag mu wàcc ndax aussi ay nit koy jëfee te nag xam nga covid bokkul ak routine bi covid dafa laaj doole bu mat sëkk dafa laaj disponibilité bu mat sëkk dafa laaj ressources humaines bu mat sëkk dafa laaj matériel bu mat sëkk mais nag état bi bàyyiwul loxoom ndax fan yi yëpp mi ngi ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu wér-gu-yaram ñu gën a góor góorlu mi ngi ñaax it ña nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu jumtukaay yi pour ñu gën a mën a bàyyi xel ña cay dox it ña cay wax lañu am as ñu ngi koy séddoo ñàkk te ku nekk la nga ca war a jot yaa ngi ko ci jot mais li may faral di wax nag li jëm ci wàllu Covid matériel bañ cay doxal du ca du mës a mat du mës mat ndax dina am bés boo xam ne xëy na sax li ngay jëfandikoo du bëri waaye dina am bës boo xam ne di nga jëfandikoo loo xam ne yaa ngi ko jëfandikoo ci ñaari fan wala ñetti fan sa dépend ci cas bi nga xam ne moom moo nekk ci sa kanam bàyyeeku bi nak amna ndax fi Covid bi commencé bonne volonté ku ci nek entreprise ku ci nek dafa jëlon dolem delok wat askan bi lolu amatul lo kenn ku may masque amna ño xam dañ dan may masque nam sax dañ ko dan politiquer sax waye baxna mhm. buñ ko politiquer ba par ñu jël ko jox ko ñinga xam ne ñoo ko ñu jëfëndiko wante ñoo ñëpp léegi réer nañu ci leen ñun dañoo ngi ni ak virus bi mhm. ñu gis ne ñu bari dañoo ragal li di ñaké euh, ñu dégg dañoo dégg euh, lu ci mel ni euh, vaccin bi di AstraZeneca bi nga xam ne dafa am ay euh, naka effet secondaire waaw xam nga loolu moom nit ñi dañuy wax seen xalaat rek réseaux sociaux yi moo ñu sonal jamono bi ñu toll ci wàllu vaccination ndax ku ci nekk yaa ngi wax li nga xalaat mais li ma bëgg a dalal xelu nit ñi mooy vaccin yi su doon vaccin yi bon. Mhm. ñun duñu taal sax ñu loxo ñu koy nekk mais aussi jàppale ni ñun ci société bi la ñu bokk. dañ fi am yaay am fi bay am fi rek am fi jigen am fi ay mak xana man ma nangu man yow nga nek sama jigen ñi lay piqûre AstraZeneca bo xamne buñu ko piqûre da lay ray wala fay indi benen sa yaram xana man ma nangu ñu ne Sinopharm dafa am problème ba paré may joxe sama lox ñu may bëkk ñaar yoon il faut aussi ñi dalal seen xel la wax ci télé yek la wax ci radio yi su fekkone loolu li ni mel dafa nek lu deggu lu ñu certifié scientifiquement kon Sénégal kenn du fi nangu ñak kenn ndax nak il faut ñu xam ben affaire yàlla suturaal nañu ba ñu fi ne ŋànk li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu wér-gu-yaram bare na loo xam ne tey jii bu accès fii ci dëkk bi di nga gis ñoo xam dinañ ne déedéet kon duñ ko nangu. donc leneen li ñuy wax ci rajo bi wala leneen li ñuy wax ci télé bi nag dañ koo gis ci rajo bi gis ci télé bi di ko wax naam bu ñu ko waxee nit ñi dinañ xaw a am tuuti retenu waaye nañu wóolu ñu nga xam ne ñoom ñoo yor seen wàllu wér-gu-yaram xanaa tey ñàkk lañu wax. mais yow bo febré da ngay dem ci dispensaire bi nek sa fi nga dëkk wala nga dem hôpital dante wala principal. ñaata mm-hmm. mm-hmm. yoon nga dem Dante wala principal ñu bindal la garab ne la naanal nga mm-hmm. nan kon su fekkon na ñafa ne dañuy defante dañuy duñu samonté li nga xamné ne la yoon santane kon kon jamono bi kon nit ñi kenn waxatul. kon loolu nañ ko santé yalla nit ñi mën nañu xalaat nit ñi mën nañu wax waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu war gi yaram nekk ci dëkk bi nañ leen bàyyi xel bu baax xam ne ñoom xam nañ ne askan bi nañ fi nekkal. te ku ci nekk nag fii bursul sa papa di sa yaay wala di sa bàjjan wala di sa rakk wala di sa mag donc ñu ne population bi ñoo bokk am na loo xam uh-huh. duñ ko nangu ñu koy def uh-huh. nit ñi nag uh-huh. jamono bii ñuy wax ak may wax ak yow sant yàlla am na benn jamono nit ñi réticent woon nañ trop ci ñàkk bi mais ñeenti fan yii ñu jàkkaarloo ñu weesu nii. gis naa ci nit ñi benn engouement boo xam ne. xam nañu ne fii mu nekk nii ñàkk bi rek moo ci mën a génne nit ñi. te professeur Seydi la dernière fois wax na ko. nee na fii mu nekk nii benn arme lañu desee boo xam ne suñ ko jëfantee du ñu am jafe-jafe ci yenn xat-xat yi ndax tey bu demee ci centre de traitement yi ña fa nekk sonn nañu. centre de traitement yi lañ fa mësul woon gis lañ fa gis léegi mooy ay xal yu ndaw. te loolu nag ko waral. ñak ñak bi ci la bokk uh-huh. waxuñu ne ñako do doo feber kay di nga feebar bo waré bo waré am corona di nga am corona uh-huh. wante ki ñaku am corona ak ki ñàkkuwul am corona ñom ñaar duñu bok demin uh-huh. non nak la mel waaye bo wa non du rechute nit ñi ñokay ci tuddee mais xam nga ñak bu duggé ci sa yaram sa yaram lu ci bokul won bu ci duggé fa mu am lu mu mel yow xolal ndox mu sedd bu fekké dafa sedd trop trop nga nan ko bu jàll lu mi def day métti séeréer bi lekk cere sax bu gaawantoo lekk cere bi lekk lekk lekk lekk te bàyyiwul ndox mi jàllal ma affaire buy dem day xotti noonu la donc lu bees la ci wer gi ci yaramam lañ ko ñàkk lu bees la ci wér gi yaramam donc normal na bu toogee saa mu gis yaram bi jaxasoo yenn yi bopp métti yenn saa yi bi diis yenn yi mu mel ni ko doon mais loolu yëpp virus bi nga xam ne moom la moom moom moom moom la moom lañ ko atténuer dugal ko ci biir yaramam moom mooy toog di préparer wu nag di xaar virus bi benen virus bu duggé ci yaram mom mu mu xex ak mom wayé nak ku ñëw nag xanaa boo duggee ci nekk dañ la di nga di nga ci la té la ñu ci dañ dinañ ko lan tek ci ay jégenay waaw xat-xat yoy nak loolu lëg la mais moo tax ki ñàkku yenn saa mu yaram metti yeen say yaram yu diis mu jaxasoo ci sax tit mais loolu yépp ben fan la wala ñaari fan après ça passe. Mhm. ñoo ngi dégg fi ci Sénégal li di pénurie de vaccin ou les cas se multiplient. waaw cas yi moom bëri nañu trop tabarkal la cas yi bëri nañu de loolu moom du lu ñuy nëbb cas yi bëri nañu te nii muy demee nii gënul ñaari fan yi ñu ngi ci juróom-benn fukk juróom-benn fukk bu doon suñu sago nag suba bu ñu xëyee ñu wàccee wàcc juróom-benn fukki mais buy gën di yéeg baaxul hmm. alors cas yi bëri na beneen bi ci desit mooy Euh, rupture vaccin xam nga rupture vaccin bi li ko bëri lu ko indil mooy si nga jamono bi Inde jamono bi metti na fa affaire bi métti na fa trop. Mhm. ah te xam ngeen ne Sénégal defarul vaccin anti Covid. Mhm. Sénégal day dem di jëgaani di indi. léegi nag comme mu war a jëgaanee bu fekkee ña ko war a jëriñ ñoo bari c' est évident la ñuy jox dañ koy loolu rek la mais du nekkul loo xamee dafay nekk rupture boo xamee dafay tar wala dafay dem. sori am na naam waaye nañ ko nañ bàyyi xel ne fii ak ay fan yu néew incha allah vaccin dinañ ñëwaat ah bu ñëwee de nit ñi dem ñàkk ji mais li ma la wax sànq daal mooy li ma gis engouement bi ma gis nii ak fagaru ma gis nit ñi yore ko jamono bi ñu toll suñ ko bàyyiwul ba ñu continuer noonu ba ñàkk ba pare dinañ xam bu baax lan mooy njëriñu ñàkk. Mhm. lii di tournée économie bi nga xam ne weesu nañ ko ci fan yi tamit est-ce que joué na ci rôle bu mag tamit. yow da maa bëgg a boole président Macky Sall ah moom. <laughs> président bu ma déglu de waaw waaw loolu moom loolu moom foog ñu wax si foog ñu wax si président am na droit dem ñemmeeku njabootam uh-huh. waaye niñ koy doxalee fan yi baaxul yenu ay kaar dëkkoo dëkk loolu moom vraiment baaxul te nit ñi bu ñu demee takkuñu masque respecté wuñu distanciation bi defuñu dara loolu baaxul loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk kilifteef yi uh-huh. ñoom xam war nañu wax ndax ñoom ñoo moom cër boobu ñun bureau yi lañ sant ak toog xaar malade yi ñëw ci biir hôpital bi am na ñoo xam ne ñooy def loolu ñoom ñu demee xool xanaa su boobaa dinañ ci indi saafara. fii ci hôpital bi ndax euh, faral ngeen di am ay cas troisième vague bi depuis troisième vague bi ndax am ngeen fi ay cas. non xam nga ñun ñun ñun nit ñi sax ñooy wax troisième vague mais ñun dañoo jàpp rek ne ba tey ñoo ñoo ci ci vague lañ nekk vague lañ nekk vague bi ne nit ñoo koy tuddee troisième première uh-huh. deuxième uh-huh. waaye daal ñun dañu nekk ne ñoo ngi ci routine nit ñi dañuy feebar ku ci feebar boo ñëwee liñ la ci war a defal ñu defal la ci am na ñoo xam ne dépisté nañ leen gis nañu ni ñaaw ñooñ jot ne am nañu feebar bi defal nañ leen test ñenn ñi positif nañu ñenn ñi négatif nañu ñi positif am fu ñuy tollu mën nañ tok seen kër ñi defal leen traitement té duñu am benn problème ah. waye am fu muy tollu fook ñu yóbbu ko ci hôpital bi defal ko ay oxygène ak yoy mhm. ñu déggmal li di tabaski ñu xamné ku né tabaski né yap consommation yap bi amu ci du ci wañ dara bëgg lek yapam na na lekk tabaski bo wax lolu bala séri di di ragal nañu lek seen yap tabaski dara néw xana kay lén ngay wax ah moy dag na nit ñaa tabaski waa Ndofane ak wa Niakhar ñum ñëpp ay fagu jógee Ndakaaru jëm ñi bi ñu <laughs> am Ndofane ak ah, Niakhar surtout waaye nag yan condition la démé demee ñi nañ ci bay xel bu baax ku nekk dal na tak maskam bo duggé ci auto bee tak sa mask bo démé dëkk bi it xamal ne ay nit nga fa fekk kon yow timit bo démé am nga no wara a ak ñoom même bo leen fekkul ñu tak mask sax yow nga tak mask du la wañ dara parce que ñom xam nañ lu nekk ci tak mask dañ ko daan def am nañ nga xam ne ba dañ koy def donc dara donc loolu rek la ñu war a bàyyi xel nit ñi daal nañu bàyyi xel ne saafonte boobu ñuy saafonte noonu ci jamono feebar bi ñu nekk nii nañ ko wàññi suñ ko mënee wàññi lan ngeen digle ci troisième vague bi lan lañu ci troisième vague bi li ñu digle woon rek li ñu digle woon daaw jéeg digle woon ko daaw moom la ñu diglewaat ren nit ñi nañuy raxas seen loxo nit ñi nañuy sàmmonteeg set ci ndaw ci jamono nawet lañu jëm te xam nañ ne du yomb nit ñi ah, nañu gorlu ñu ñu ñu rax ñu ñu ñu sàmmonteeg set di utiliser ay ay ay gel ah respecter distanciation bi di tak masque nit ñi nañu tak masque ñu bay li ñi def feebar ba ngi fi de mu ngi fi te feebar bi jamono bi ñu toll nii dafa jógee dafa romb mag ñi jëm ci te loolu xam nga lu doy waat yow bàyyil waxu confinement man tudduma fi confinement de waaye li may wax daal mooy nit ñi xaw ma confinement la xaw ma du confinement waaye daal li fi nekk mooy même bu président waxoon ne on est obligé de vivre avec parce que aussi euh, de parfois dafay am problème économique problème social, problème social ak yu bëri mais même bu ñu waxul confinement waxuñ dara nañu wax ne nit ñi nañu dund ak moom dund ak moom nag dund ak moom mooy ngay takk masque dund ak moom mooy ngay sàmmonteeg set dund moom mooy ngay def la ñuy tere sante bàyyi la santaane def lu ñu santaane bàyyi la ñu tere. Mm. loolu mooy dund moom. Mm. loolu nag ñit ñëpp la war. donc bu borom dëkk bi sax waxee ne nañu géemu dund ak moom parce que mhm. aussi ñun suñu dëkk yi du dëkk yoo xam ne dañoo am doole mhm. alors am am bi demeewul noonu mën-mën bi demeewul noonu mhm. li ci bëri dañ koy jëgaane di ko indi léegi fañ koy war a jëgaanee ñoo ñun tey ñoom ñoo nekk ci xat-xat ñoom ñoo sax ñu gën a sonn ci covid bi kon xam nga ñu balaa ñu ñuy xalaat dinañ ñu xalaat naam ñu jox sax naam waaye est-ce ñu daan jox lañ jox ba tey te fii nag comme li fi nekk demeewul noonu kon ñun dañu war a obligé ñun ñu jëlal ko suñu bopp ñu fagaru géem a góorgóorlu ba def loo xam ne lu fi waay def rek boppam la ko defal ku fi sàmmoonteeg set sa bopp nga ko defal ku fi sàmmoonte wala setet yow yaay exposé te su boobaa nag ah, feebar bi moom feebar moom day ñëw rek mën na ñëw ci yow ñëw ñëw anam bu yomb mën naa dem ci keneen anam bu diis xanaa di leen gërëm yéen waa Saalum waaw di leen gërëm bu baax ci ñëw bi ngeen fi ñëw Euh, di leen encouragé bu baax it parce que yenn saa yi ñu gis euh, ni ngeen def ci groupe bi whatsapp yi ak yooyu statut yi ñu ngi leen di seetaan ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di bàyyi xel mais li ñu bëgg a wax rek mooy jàpp leen ci combat bi ngeen journaliste yi ndax yow mii kat mën ngaa toog Ndakaaru wax ki nekk Tambacounda nekk la yow mën ngaa nekk Ndakaar yori image sànni ko ku nekk fongu li muy gis ko donc yéen seen image yi dañ leen di ñaan ngeen gën a góorgóorlu ak seen son bi ak yooyu ngeen di wax ci wàllu Covid bi ndax yéen wàllu Covid bi da ngeen ci am da ngeen ci am rôle bu am solo role bi ngeen ci am mooy dangeen ngeen di war a waxtaan ak nit ñi fu ngeen toll di yee nit ñi fu ngeen toll di leen fàttali fu ngeen toll ndax fii mu nekk nii dootu mbiru rajo wala mbiru sama rajo wala sama télé mais mbiru askan bi askan bi moo nekk ci xat-xat askan bi moo nekk ci tolof bi yépp moo nekk ci loo xam ne dafa yëngatu donc nag àdduna bu yëngutoo ku nekk da ngay dem fa nga xam ne fa nga ne nga géem fa def dara ndax ñun ñii kat nattu lañ ci ñoo xam ne ñun ñii fii mu nekk nii mënuñoo génn mënuñoo dem fii mu nekk nii ñëpp dinañ wàcc waaye ñun am fokk am ku toog ci hôpital bi liggéey buñ nee am na ko am xat-xat nekk ci biir askan wi foog ñu déplacé wu dem seeti leen léegi nag ñeneen ñi si des it am na ñoo xam ne ñooy maire yi nañu gën a góorgóorlu ñooy ma conseil municipaux yi délégué de quartier yi ak groupement yi nga xam ne ñoo nekk ci biir euh, quartier yi ku ci nekk na jóg euh, yokkat mobilisation yi ndaxte nag aussi dëkk bi pour ñu defar ko kenn mënu koo defar ñu dëkk ci dëkk bi ñoo ko mën a defar donc maa ngi leen di gërëm bu baax maa ngi leen di sant